mbas mii nga xam ne moo fi nekk fu nañ di ko fa tudd ci àdduna bi am na foof tax na nelawatuñ ba yendoor te moo ne ay jamono lu bari su masaan am ñoom lañ ca yaakaar waaye tey wane nañ seenug lët seenug lot ak seenug tële kon jullit bi moom fa mu nekkoon démb saa su nekk muy wan buur bi subhanahu wa taala ne ko yow rekk la duñ lenn lu dul lu say jaam yu xeebu yu mënu dara foofu buñ fa jóg nañu ko ñaan li ñu koy ñaan mooy li ñëpp xam fu mu àggutoon bu mu fa àgg ñam dal nañ wér du dara fi moom doonte jaamub yàlla fab moroomam jaamam wékk ko ay mbiram lépp ba ñépp xëy xëy lot kenn mënu dara ku nekk naa ne sama bopp sama bopp bu ne sama bopp rek daa xamutoon boppam suñu boroom mi ngi wax ci alxuraan ne dim ñuy bind di ñu indi fii ci kaw suuf si du lu mu làmbatu làmbatuwu ko tàndatuwu ko dafa am lu mu ñu fi doon doyee bu jëkk ba mooy ñu yoral ko suufam si fu dara nekkut ñu fexe ba dara ne fa ñaareel ba it ku bëgg àgg ci moom jaar ci noonu ku bëgg àgg ci moom jaar ci noonu ndax nit ki fuñ ne ka nekkoon nekkatu fa diw moo ko fa wuutu loolu moom dox jëmi suñu borom ci dañ ci joxe misaal su boobaa ka nga fay fekk bu nangoo ne moo fi nekkal ka nga fi daa fekk jaadu na bor boo ko amee boo ko bëggee fay nga jox ko ka fa nekk bam naan yàlla moo leen bind jële leen ci suuf huwa anshaakum min al ard wastamarakum fiha daf caa teg fastaghfiruhu thumma tuubu ilayhi dee leen ko delloo lim moom saa su nekk donte moom moom lépp saa bu ngeen doxee ba dox jéego boo xam ne doxul jëm ci luy dundal suuf si lu koy teerab ngeen wàññi taxaw jàkkaarloo woot ak borom bi ne ko ñoo ngi tuub bañ a wax noo ngi jégglu noo ngi jégglu nit ñi dañ ko woyefal a woyefal min ko ba tekkiitul dara léegi waaye bu dee suñu borom maa ngi tuub nga koy wax waaye moo ne woon it malaikaam ya da leen ko doon yëgal rek ndax amul ku muy diisoon amul kenn ku muy diisoon borom kattan la goo xam ne lu ko soob def mu ne leen inni jaailun fil ardi xalifa suuf soosee dama fa bëgg a yónni kenn ku ma fay nekkal waaye ku nekk fu tàng bu yàggee mu tàng moom lañ doon wax ak moom xamoon na ne loolu lañ koy tontu lañ ko tont xamoon na ko waaye ñun lay wan aw yoon ñun ñu fi bëgg a indi ak wàccaay moo ñu war a àndal qaalu ñoom malaayka ñu ne atajaalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima mbaa da nga fa yóbbu ku ko yàq di fa tuur deret yi mbokkam di fa tuur deret ju mu wërta tuur te nga nu fa yónni ñun ñi nga xam ne naxnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak mu ne inni a'lamu ma la ta'lamun lu ngeen xam rek ci man ngeen ko xamee ra jëkkantiwuma ak yéen xam waaye lu ngeen xam maa leen ko xamal dese lu bari daal di koy layal allama adama al asmaa kullaha ba mu koy laata indi ca penc ma daf koo déey ndax kuñ déey ku ñeme dañ koo déey ba mu ñëwee mu ne leen ginnaaw yéen wax ngeen li ngeen wax ma wax li ma wax nañ laaj kii ma fay bëgg yóbbu ba xam lu muy wax man nag maay laaj ngeen tontu ku ma tontu rek yaa fay dem kum ne leelum tudd fekk garab la joxañ mu ne leen yàlla rek ko xam wallahu alam yàlla ne leen ku dul loolu lu dul loolu yàllaa ko xam li leenum tudd fekk ak dex la joxañ ñu ne ko loolu yàllaa ko xam mu ne moo ne lu dul loolu yàllaa ko xam li ne aadama leneen tudd mu ne garab ci misaal mu ne wax nga dëgg de nu mu tudd leneen tudd dex la tudd lee géej la tudd lee aw doj la tudd am ak luñ mujj def bañ demee ba xam ne xaw nañoo rëcc tuuti dañ ne subhanak laa ilma lana illa ma allamtana dellu gannaaw innaka anta al alimul hakim foofu nag nit daf ko war a jël def ko aw gàngalam fu mu jëm jëmee ko fa mbokk yi teraanga ji yàlla teral doomu aadama teral ko nit ba ca jiitu mooy jox ko xel euh, tànn ko ci biir mbindeef mi jox ko cim xel mu kenn amut mbindeef yu bari yiy dox ko dikk ñu di leen tudde ay dàbba am nañuy xel dañuy xam ne ñoo jur kii dañuy xam ne lii lu ñuy lekk la lii duñ ko lekk di tànn ci ñax mi lu ñuy bëgg ak lu ñu dul bëgg waaye li ñu wuteeg nit mooy fàttali boo jëlee doomam lu jooy ya bari bari bari su matee yaari weer boo ko ëndatee mën na ko bañ a xam ne waaye nit moom am na ñu yàlla may ñoo xam ne ku ñu xamoon juróom fukki at ci gannaaw it buñ la gisaatee xàmmee la ne la fi ma la masana ji mu ne barab sàngam soo ko waxee fa ngeen gisante woon la ngeen doon def rek mu xam mu mel ne tey ci moom loolu nag jën teranga féetewu ko kaw waaye suñu borom nee na ci alquran bu leen dem mukk bay dugg ci dundug ñeneen ñi bay niroog ñoom lenn ndax du ngeen seeni morom te ñoom duñu seeni morom ñooñu ñooy ñan mooy dàbb yooyu ma wax rek yii nga xam ne yàlla leen bind ñuy lekk di naan di nelaw di dem ak dikk ñooñu lu seen yitte ci kaw suuf lekk ak naan ak nelaw ak jurante di gën di bari nit ñi di leen jëfandikoo yow nit ñi jëfandikoo nag su ko nit kiy jëfandikoo ba mujj mu sàppi ko mun ne na dañ kumpa yi ci des laj gi tàmbali naa dikk bukk yi wax nañ ko ñu bare koy wax ak waxaat nee nañu di gi lekk luñ wër sa lekk moo ko jox nit tuxale nañ ci ku xam-xamam màcc jëm ci lool nee na tudd na ay tur sax jëruma di sa àgg waaye nee na tur yooyu mu tuddoon bu ko nit ki lekkee bala ko mu nit kee miin mu loola di miin mu nit ki mën naa jur musiba ndax fa muy war a jaar di jariñ nit ki loola baaxawu faa jaar day yàq di dem loolu mooy tënk bi si lu leer lu gàtt kon boog yàlla nee na bu leen mel ni bàyyi may ñax gu ne ngeen rocc ko ne ko pelam sax loolu am na tëkku yum ci tëkku nit ñi ak jinne yi nga xam ne ñoom la wax ne da leen a bind ngir ñu jàmm ko ñee moom leen a bind nit ñi jaamoo leen yàlla waaye nit ñoom dañoo war a jaamu yàlla wa ma xalaqtu jinna wal insa illa liya'budun nee na aj sawara wu ñu wax jahannama nga ne da ko fa da ko bind teg ko fa waajal fa ay way yu bari yàlla nag lum ne lu bari la ñun nu muy toll du yomb xam ci suñu dégg nee na ñu bari ñoo nit ak jinne la ñuy doon foofu lañ jëm li leen ko teg mooy bi leen yàlla indee fii def leen fi def nit xalifa def ko fi li yastamara al ard yastamir al ard bu demee bay demaat sawara gënalut yàlla gënalu ko ndax nee na woon anna hada siraati mustaqiman fattabicuhu wala tattabicu subula fa tafaraqa bikum an sabili nee na daf leen a jox ay xel te duñ ca xalaat dara mu jox leen ay gët ñu ngi xujj di xoole te duñ gis dara jox leen ay nopp ñuy déglu ay kanjang kanjang guddeeg bëccëg te duñ dégg dara lu weesu boo leen ko laajee fàtte nañ ko nee na ñooñu atteb ku ñu yor atteb bàyyi ma la ñuy bëgg a yor te su booba bàyyi ma jël na place am toog ko fees ko dell fu ñu jëm wëri feneen fu ñu jëm rek duñ ko am yàlla nee na ulaika humul ghafilun yàlla nañu ci yàlla musal gannaaw nag yàlla daf noo bindoon wàccanu fi war ñoo delloowaat te dellu ga sawara yàlla bëgg ko ca dem ñun ñëpp àjjana la ñuy yéene ndax wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima rahim buñ koy jàngalee sax dañ naan mber ma la ca àllaaxira kon yàlla bëggut kenn ku dem sawara waaye bala ñu fa dugg bala ñuy dem àjjana nag li ñu nekk woon ci àdduna la ñuy nattoo ma natt boo ko déggee mooy nattal ndab lu nekk kenn ku nekk taaj ndaa ndaa euh, la muy taaj indi la muy indi def ca lam am indi ko ñu peese ko ba xam feesal na am den su feesee la dem aljanna su feesulul dem safaan ba yàlla ci yàlla musal loolu nag fi lañ koy moytoo te nit ki buy dund mën naa xam ba xam fii mu nekk nu muy mel bu ëllëgee su fekkee am xelam ak pas-pasam saa su ne mi ngi ne lamm rek ci ana lu yàlla digle ba mu dem ca ana lu yàlla tere ba mu moytu ko su boobaa ma ngay dund mën naa am yaakaar ci ne mbiram mën naa baax ëllëg ndax loolu rek moo fa am njariñ yawma laa yanfau maalun wala banuuna illa man ata allah bi qalbin salim qalbun salim mooy xol boo xam ne yàlla du si jóg benn wax soo déggee ñu naan nañ delluwaat ci yàlla ñaan ko def nañ ay dañ fa wootu na jóge ndax wàcc moo gën a wóor cëppeelu cëppeelu moom lu ne la ci lay dale nit ki mooy laata li mu dugg di àgg mu bëgg a wàcc te taxawut lu ne mën na ko caa dal waaye na nem yam ci yi loxo balay lam duggoon taxaw ni rimm mu door a wàcc ku fay def ñaare liñ koy seeti noo fanaane du bari yal nañu ko yàlla jàppandalal su ko defee nag bis ñuy nat euh, ñax gu wow dafay lakkaale gu tooy mooy ubbiku gi adduna bi am léegi nga xam ne ñii dañuy dem ba mujj yaakaar fab seen mbir wékk ko ci seen moroomum jaam fu mu jëm ñu jëm fu lu mu wax ñu ne dëgg la ba tax jàpp xamuñ njuumteem lu mu dugg rek ñu dugg ca moom day diig diigaale leen te moo ne mënoon nañ ko ne déet loolu deesu ko lekk njugub deesu ko lekk deesut lekk ci jamono ji ñu toll seen ndax donte daanañ ko layal naan am na ci xeet woowu bët bëtóor dana faj li di faj laa dañoo xiifoon dong waaye buñ gisee diw ñoom di ko def rawati di ko lekk muy dund léegi tey ña naw tàmbali ko def musiba ma du yem ci bopp boppu boroom yi yàlla wax ne bu ko kenn lekk bari na ci yoo xam ne neex naa xàmmee diru jang bané ar gep jur go xamné par ben nga cey gis té muy jur lu ne gañ do leen gis ñu and mukk duñ ñoñ jiw kasse kasse ndax ñoñ dañuy lekkante ñaara ku ci neew doole sa morom lekk ko moromam lekk ko waye yi nga xam yalla dafa digle ñu di leen mom ñi ngi ni par ben lañuy jur té léeg-léeg ñepp soxla leen te ñëpp a di amano loolu moo tudd barkeel ñee dañ naan gàññ gàññaar la waaye barkeeluñ barke amu ca ku cay jur benn néew na te doo gis mbooloo àndandoo ca waaye yii nga xam ne moom nee na lekk leen ko du joxoñ mukk fu dara nekkut bu nee lekk leen ko rek du mas a jeex ndax moo ñu gën a xam suñu lim ñaata la luñ ca soxla rek dañ koy am takk bu yomba takk la te mën a dëgër su ko defee nag gannaaw am na ñu jóge woon fa seen borom bañ naan delluwaat delluwaat leen fa nañ gaaw wàññi ko ndax ñoom kat ci ñoom la yaakaar des ñu nangu woon amuk suñu boroom gi ak coobareem ak kattanam xam ne gëm ne mooy kii dundal mooy rey mooy dekkal bu ëllëgee moo yóbbu nit aljana moo ko yóbbu safara foofu kat la yaakaar des ndax am na fu wéri di dugg foo xam ne fii yàlla sax gëmuñ ko lañ wax yàlla amut nuñ mujj def àndandoo doon mbooloo mu bari di ñu am maanaa ñu xam ci àdduna bi dugg ci jàkka yi ne jullit yi ñaanal leen yàlla li ñu dal te wàccuñu kon jullit yi fañ tegoon seen tànk buñ ko teg nañ folli seeni nopp te fal seen bët ci lan fa leen yàlla joxañ foofa la jàmm di nekk ñun ñi doomu aadama yi nag ñu am jagle koo xam ne dañu ko am wutale ko rab yi rab mooy bàyyi may rek yi dox ak dikk waroom xam-xam yi jiwoon nañ ci ne nit rek la yàlla sàkk dara sàkk ca nit def suuf sàkk ko ca yi ci des yëpp amuñu cosaan su ëllëgee da di jëri ñu naaw mu jeex topp leen dara waaye nit moom daf ko wutal fondement bu dëgër la cay firnde mooy nit taxaw ci kaw suuf si dox rek la fi la xelante dale doon géej gi ci kaw suuf la nekk nekk ci biir géej gi léeg-léeg mu tiit ba day bëgg a wàccaat ci kaw suuf si nga xam ne fa la cosaanoo fa la xelam euh, nit dana dugg ci fafal naaw muy naaw ci kaw jaww ji fekk mi ci kaw suuf sax ndax jaww ji boo ko wàccee waaye bu karang-karang fit bi dem li muy ñaan mooy wàccaat su nekkee ci géej gi fenn nekk di jax fi wa dem lu mu xam dana ci dugg li muy ñaanaat yàlla mooy wàccaat ci kaw suuf si ndax foofu la ko yàlla boole fa la ko yabal mu war fa liggéey yabalu ko ci ndox mi yabalu ko ci jawu ji moom la alquran di wax ne fa ida rakibu fi fulki daawu allah muxlisina lahu diin mooy buñ jaqee luñ dugg muy naaw ci kaw wala muy dox ci ndox mi dañuy tiit da ngay dégg ñëpp naan yàlla ak làkk wa muy làkk bu ne am na yàlla num ci tudd waaye waxul yàlla caaxaan yii de yàlla deugantan lay wax ki yaakar yaakaar ne moo koy musal ñu nag dafa ñu ko ñun julli ñu gëm loola gëm ne ku ne ci kaw jaww gi sax bu ko fa yàlla soxla jël ko mu ne ci ndox mi xamutum ndox nona moy wa idha ghashiyahum mawjun ka da'u allaha llaha lahu diin fa lamma najahum ila albari fa minhum muqtasid waaye wa maa yajxadu bi ayatina illa kullu xasaarin kafuur nee na bu nit nekkee ci kaw asamaan si wala ndox mi ba wàcc nag ñaan gone mu dugg si ba wàcc ne xamoon naa ne danaa wàcc tàmbalee dëkkat suñu borom bëre wala man najahum ila albarri ida hum yushrikuun li yakfuru bi ma aataynahum wa li yatamattaau fa sawfa yaalamuun buñ taseeg man ëllëg danañ xam ne yàlla du caaxaan te caaxaan lu wut su ko defee nit yàlla da ko bind ci suuf gannaaw bu mu amalee suuf wàcce kowaat waat ci suuf bëgg mu dundal suuf si ba noppi mu nekk fi xalifab suñu borom ci kaw suuf si euh, mu am fi liggéey ñu joxoñ ko fee ne ko wanal gannaaw fële ñun jullit yi nag am nañ ci wàll suñu demee ba suñ suñ mbir ajatuñ ko ci yàlla ndax nee na ñee gisuñu ko dégguñu ko waaye alxuraan a ngi fi ajutuñ ko ci jërënt bi sallallahu alayhi wa sallam nee wér waaye daal lu du ñoom nekk baax na lu du ñoom def wala ñu jaar fa aw yoon la ba diw ñoom dugg foo xam ne mënatuñoo génn duggaale ñu fa ñun nañ caa la wàññi ndax am nañ fuñ jëm muy yàlla yàlla na nu yàlla wallu ci kattanam gu réy ga ak coobareem ja xam ne suuf si ñi fi nekk ñi nangu ak ñu nanguwul ñëpp ay jaamam dong lañu e, ñi fi nekk it mënuñoo mel nenn lu dul doon jaam yàlla ku ko nangu ku ko nanguwutu ci yam ñi ngi koy ñaan mu e, am lu mu seet doonte sequt ak kenn dara lu koy yëgloo lenn mu xam ne moom am na ñu fas yéene toog fii kaw si kaw di ko fi jàmm ba faw mu rus pas-pas boobu ñu am donte inna allaha la yastahi waaye daal mu bàyyi leen fi ndax fas nañ yéene nekkal ko fi doon ay xalifaam waaye fas nañ fi yéene nekk dundale ko suufam ci ni ñu ko fi dundale mooy jaamu fi yàlla jaamu ko fi ci nem ko santaane yàlla na ko dégg te yamale fi mbas moom moo xam ay jullit la dal wala du ay jullit moo xam ay wóor la dal wala ay baadoo la moo xam ko am la dal wala ko yurub dal te fam yemoon dal yàlla bu mu ko weesu eh, ñaanoon nañ ko ñaanate ko fi ñi bari di ko ñaan mu di ko weesu loolu dara ci suñu borom ndax laa taqnatu min rahmatillah ñaan la santaane nañuy ñaan rek nañuy ñaan ndax nee na ku dem ba ne yàlla jërtata ñaan te ñaan bokk ci jaam jaamiinu yàlla yi dana ko jëflante ak moom ud'uuni astajib lakum inna alladina yastakbiruuna an ibadati jaare ko ci ñaan sa yadxuluuna jahannama daxirin yàlla na ñu ci yàlla musal kon nañ wéy di ñaan fa in fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani fal yastajibu li wal yuminu bi laallahum yarshudun yàlla ñu yàlla dafa dégg ak topp te mu seytaane nekk pakkam